bëri wax dëgg yàlla Aïcha ñun lii bett ñu xam nga bett ñu. léegi yow bi Jibril doon wax yaa ngi koy reetaan lan nga doon. non xam nga ko doon xamuñu ko xam nga man dañ bokk lu ñu xamul man as tuut bu ma ci xam ci wàllu ñaari parti yi muy le PDS ak le euh, euh, bon mën naa jël PS version Khalifa. Mhm. du ay parti yóbbaale ma du appartement dañu leen def pour allah kulli aal ñu toog si ginnaaw kenn tey ku xam histoire mhm. allah kulli aal format boo mënti am PDS nekkul si plan pour soutenir qui nga jël problème égo ñun ci réew mi lañ ah, nekk. waaw waaw PDS ñëwaat laa nga bàyyi ma ti pare Jibril parce que boobu dañ commencé woon dem fépp fu ñu dem moom jàpp ne moom moo yore Yewwi te fàtte na moom d'ici deux ans dix ans de cela boo ko retourné en arrière il n'existait pas comme ni ko Barth waxee xam fii ba 2010 yeneen année bi mosuñu gisoon Sonko léegi mu dem ba si biir mu yaakaar ne moom moo tiré les autres forces léegi nag il au meeting de il voulait montrer aux autres que sans vous ñun on peut yaa ngi comprendre les leaders comme le euh, wul le PS xaruñu le PS en deux pour dem di toppa si ginnaaw kii que ce soit kon ñoom ñu seen yoon nag lañ nekk léegi li tax IEU yu am mënul woon ñàkk en réalité li ma la wax toujours sànq bu doon tey ay politique mën na am gentleman mais seen biir dafa rax ñoo xam ne bokk bokkuñu maanaam ñii dafa am ay politiciens ñii am ay ay populistes ñii am ay esprit léegi ñoom ba pare parti yi comme li Jibril wax ñoom ils l'ont fait sciemment ñoom comme ay sama frère Jibril moom parti am Front pour la République ay comme amuñu doole ak mouvement yi ñoom lu ñu jàpp ñoom dañ jàpp ne ñoom mënoo leen gañe commune ba mënoo leen gañe seen gox ñu ne ñii ne moom dañ topp si ginnaaw mais bu ñu demee si njëlgën ba duñ leen yóbbu assemblée duñ leen yóbbu